لي سكينة euh, chargé de la communication euh, de la daayira Nourou Daarayni du Crédit Mutuel du Sénégal li tànk yi fi ñëwee tey nag ay mbokki taalibe ñoo amoon yitte ak yéene ay ati ati at di ko togg di ko mébét ba yàlla dogal ci bi ci lañ dajaloo ci mbooloo mu néew ànd dem siyaar yi Cheikh Sidil Mokhtar bañ fa àggee yóbbul ko addiye joo xam ne yëg-yëg lañ ko defee woon rek ci kaw yëg-yëg rek kenn jekki-jekki ne aca nañ wootante te dem mbooloo mu matul woon ñaar fukki nit ba ñuy dem addiye ji ñu yóbbu woon ci juróom benn fukki junni la tolloon bi ñu àggee waxtaan ak moom jébbal ko liggéey bi wax ko suñu yéene bi mu yëgee yéene ji ak eh, mbir mi ni mu doxee xol bi xolam sedd mu taat ñu sàkk ko ci moom tamit ne ko ah su mënee nekkit ñu am daayira ci la laa di tabax taxawal daayira bi tuddeel ñu ko nuuru daara yi te nuuru daara yi moom kenn ku ne xam ne ni ci Serigne Touba menoon bañ na ko daanañu wax ni sax bu daan soxla téere bi daanaan jox leen ma sama téere bi bu nee jox leen ma sama téere bi ku ne xam ne nuuru daara yi la gannaaw si loolu nag boobaak léegi ñi ngi dox ba daaw bi ñuy mujjee siyaare Cheikh Sidine Mokhtar yàlla dafa mel ni daf ñoo déeyoon ba Serigne Mountakha la njëkk a doog dem Serigne Cheikh Sidine Mokhtar ren jii nag crédit mutuel ca nam ko daan defee organiser nañ fi journée culturelle cees waaye boobaak léegi nag ñu nekk ci benn situation bu xaw a compliqué ndax euh, banque dafa am nu muy doxee suñ demee ba saytu doxalin wi te doxalin bi dëppawut ak yoon dañ koy daal di teg ci loxo yi nguur gi day seet nu mu nu mu gënee ca moom mu teg ko ci loxo yi kenn ngir kooku saytu ko ba mu teguwaat ci yoon ci lañ nekk ci li ñuy tuddee administrateur administration provisoire di sant euh, ki ko jiite jamono bi mu ngi nii suñu wet taxaw ginnaaw si loolu nag mbokki taalibe yi waxtaan. ndax ab murit kat yaakaaram newul fu dul Touba su ko jafe-jafe dabee day daal di dellu Touba ngir mën a saafara jafe-jafeem ci lañ xalaat ne ah comme sëriñ bi woote na ab liggéey liggéey boobu war nañ caa tabbi ah buñ ci àggee tamit jooyal ko sunu sunu naqar li ñuy metti li nga xam ne moo dal sunu kër gi mu defal ñu ci ñaan sunu borom saafara ko ci la góor ci la mbokk taalibe yi góorgóorlu seen kéem kattan ba dajale addiye joo xam ni mat na fukki yoon addiye jën njëkkoon yóbbu ci at mu njëkk ma ci seen góorgóorlu seenu Pastef seenu dogu ñu ànd koog personnelu crédit mutuel bi yëpp nag sans exception bàyyiwuñ kenn si ginnaaw li tàmbalee ci njiit li ci kaw ba ci ay collaborateur am ba ci personnel bi personnel bi ci biir sunu mbokki murid yi mbokki taalibe yi ginnaaw mbokki taalibe yi ñu bokk ak ñeneen sunu mbokki tijaan yi am nañ fi représentant envoyé nañ fi benn délégation ginnaaw si loolu yeneen mbokki taalibe yi ñi nekk ci yeneen euh, groupe euh, socio religieux yëpp ñi ngi fi su loolu weesoo suñu mbokki chrétien yi sax nga xam ne si bokku ñoom ñoom diine biñu yégee mbir mi dañu ni dañ si ànd ak yéen ba ñuy jug di ñëw tamit boole nañ ci ñëpp bàyyiwuñ kenn syndicat yi délégué yi ñëpp boole nañ amical bi ñëpp boole nañ leen ci ngir bëgg sunu doxalin nga xam ne ci ñaari principe rek la tënku tënku principe bu njëkk bi mooy fexe ba sëriñ bi lépp lu mu woote ci liggéey ñu mën a dajale suñu addiya indi ci ñaareelu principe bi mooy lan mooy fexe ba cohésion sociale maanaam benn le mbokki taalibe yi boole kook yeneen mbokk yi nekk foofu ba crédit mutuel ñëpp nekk benn ba ñuy yëkkateendoo di tegandoo ba jàmm mën a am bu ëllëg mu mën a suqali njaboot gi ndax lay loo xam ni si nii ñun rek salarié yi ajuwuñ si njaboot gi suñu ginnaaw mbokk yi xarit yi mbokk taalibe yi ñëpp ci la ñuy jariñoo ba ci Touba gi nga xam ne ci la ñuy compati suñu ci li ñuy am di indi ci Touba kon loolu mooy sababu tànk yi ngir bëgg sëriñ bi nangul ñu sunub liggéey ci liggéey université bi ñu jox jébbal ko ko wul bi tamit mu ñaanal ñu delluwaat ca crédit mutuel fañ koy séentu mu nekk fa ndax kat koo xam ne dañ laa boole ci leader yi boo demee ba nekk ci jafe-jafe dañ laa war a taxaw ba nga delluwaat ca la nga nekkoon kon nag lii mooy tànk yi du lenn lu dul lii ngir bëgg rek jàmm dellusiwaat ci kër gi benn le mbokki taalibe yi ak liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi kenn bañ ñu cee man kon lii mooy tànk yi